association de la presse locale ni ngeen ko xamee fan yi yëpp depuis démb dafa tàmbali ay euh, journée yu ñuy tubbee euh, les journées de la presse di ñetti fan yi nga xamante ne ay activités ñoo ci am bi ci gën a am solo sax mën nañoo jàpp ne mooy bii ñu amal tey parce que thème bi mooy la presse face aux défis de la présidentielle ñun dañoo nekk ay journalistes mais d'abord dañoo nekk ay citoyens sénégalais am na lu ñu jote yee ay weer yu ñuy génn jafe woon na ci ku nekk rawatina ci presse bi nga génn dem def sa liggéey foofu xamuñu kan mooy journaliste kan mooy tailleur kan mooy chauffeur kan mooy directeur général kan mooy ministre tout le monde avait des problèmes ñun nag ñu nekk ci suñu liggéey suñu liggéey mooy informer jël ay fait di ko rapporter soit ñu wax ko wala ñu bind ko ñu ne nag laata balaa ñëw nekk loolu yëpp am na loo xamante ne moo ñu may ñu mën a nekk loolu mooy Sénégal Sénégal su yëngatoo ñun ñëpp nous sommes tous concernés te presse dafa am rôle bu mu war a jouer ci démocratie boo gis rawatina ci élection présidentielle. du ñu wàcc suñu yoon nag lu ñuy def mbirum politique alerte la ñu bëgg a dañoo bëgg a sensibiliser citoyens sénégalais yi ñu xam ne fu ñu jëm fu ñu jóge ak fu ñu jëm. lu am solo la te il est de la responsabilité di ku nekk sénégalais bépp sénégalais war na jël conscience ni élection yi ñu jëm du xeex du xuloo du du guerre dañuy tànn kuy jiite Sénégal tànneef bi nag dañoo bëgg mu am ci jàmm moo tax ñu ne ñun kon ñu ngi ci ñettiweer weer wala ñeenti weer parce que activité bi ñu ko tàmbalee xalaat sax programme bi yàgg na ëpp na juróom benn weer présidente ñu ciy xalaat di ci waxtaan ñu xam ne nag li gën a am solo jamono ji mooy élection présidentielle bi ñun nañu lancé alerte à partir de Thiès lancer un appel à tous les citoyens sénégalais waxuma politique yi kese politique yi yu néew lañu ci sénégalais yi mais sénégalais bu nekk jël responsabilité jël engagement xam ne ne dinañ dem ci élection yi te suñ ci génnee Sénégal day continuer ñun loolu moo ñu ñor ñun journaliste Thiès yi qu'après 2024 que tout citoyen prenne conscience que ne Sénégal day dem quel que soit le président de la République ñun far ñu fenn wala ku am foo far du feeñ sa liggéey mais li ñu ñor ñun mooy stabilité Sénégal loolu moo waral ndaje bi ci noonu la ñu ne nag dañuy dajale ñëpp ñi nga xamante ne doomu cees lañ ci couche yëpp muy ci wàllum diine ci wàllum société civile wàllum politique citoyen simple képp kuy acteur képp kuy citoyen sénégalais nga ñëw ci daje bile ñu waxtaanee lii xam li nga xamante ne mooy dëgëral stabilité ak jàmm ci biir Sénégal. loolu mooy euh, objet rencontre bi di ñaan nag euh, képp ki nga xamante ne teew nga fi nga jël engagement à partir de cette rencontre ni man dogu naa ni jàmm ji nekk Sénégal dina wéy bésu élection yi. ak bu élection yi passé loolu mooy appel bi nga xamante dañ kaa bëgg a lancer à partir de Thiès pour que cela fasse tache d'huile un peu partout sur le territoire national fexe ba yeneen gox yi à l'image de Thiès ñu jël engagement wax ne daal stabilité réew mi dal gi ak jàmm gi dañ def suñu kéemtulaay kattan ba ñu mën kaa téye mu mën a am après élection présidentielle bu 2024 damay terminer rek damay gàttal wax ji Euh, di wax samay naataangoo journalistes yi suñuy responsabilité la également que élection yi jàmm ji ci suñuy loxo la war a jaare ndaxte kàddu ñun ñoo koy jottali ci wax ak ci bind kon am nañu responsabilité bu mag ci préserver stabilité Sénégal journaliste bu nekk sooy bind wala sooy wax na nekk la nga xamante ne du taal réew mi Sénégal ñee nañ ñu instabilité bu am ci sous-région bi ñaanuñu yàlla mu àgg Sénégal te am na lu côté téye mag yaa ngi fii di xewoon nag événement yu yu regrettable la mais bëggatuñu bëggatuñu mu am Sénégal te journalistes yi nañ jël conscience ne am nañu responsabilité bu mag ci liy indi jàmm ci biir Sénégal maa leen di gërëm di leen sant.